solo ñu daal def transition rek avant ñuy terminer wax ci li nga xamante ne mooy affiche yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw actuellement mm-hmm. euh, coow li ci trop ku nekk di ci commentaire ci gox yeeg goxaan yi mm-hmm. euh, ñu dooree ko rek ki nga xamante ne mooy diggante Ama Baldé ak Modou Lo doon lamb joo xamante ne mën naa ni koy xaar waaw lamb la joo xam ne moom képp kuy dund lamb yaa ngi koy xaar Ama Baldé Modou Lo waaw parce que lamb loo nga xam ne dafa bokk ci lamb yi nga xam ne ñoo war a delloo lamb fa mu nekkoon ba nit ñi naan carte d'Afrique yi ngi nee ko moom ak lii ak lii nga xam ne lamb événement la woon bu làmb amoon da ngay fàttali ne Sénégal am na président Ama Baldé Modou Lô rek moo ko mën a war a delloo si waat ci làmb eh, Bombardier Balla Gaye day neex mais gis nañ ko Ama Baldé Modou Lô lañ mës a gis ñaari nit yoo xamante ni nii nag làmb moo am foo xamante ni fan leen teg parce que amateuru làmb yi ñi faral Modou Lô ñi faral Ama Baldé ñëpp ñaar ñooñu rek lañ jàpp ne ñoo nekk ci làmb te kenn mënu leen mooy nga faral Ama xam nga ne kenn mënu ko nga faral xam nga ne kenn mënul Modou Lô ci làmb loolu moo yéem nit ñi moo tax ñëpp di ko xaar hmm. te am nañ gëm-gëmu ne mooy delloo si làmb fi mu war a dem hmm. hmm. si le plan technique mobile lan la gisee ñaari waaw sur le plan technique la làmb ji mooy ñoom ñaar liñ jotoogum bëri ci arène bi li ñu bëreegum ci arène bi Modou lañ fi yeggagum fu ñu yeggagul Ama Baldé mu bëri ci lu ko neex dem yoonam digganteem ak kan Modou def na ko ci Paul Maurice Modou def na ko ci Les 2 def na ko ci ñeneen ak ñeneen mais faaw gaa yi bàyyi xel ne Ama Baldé dafa mën a bëre faaw ñu bàyyi xel ne mbër mu la xamante ni mën a bëri daanu ku la laaj li neel mobile làmb ji am na ñeent ñett yoo xam ne wala ñeent yoo xam ne faale wuñ ko mën a bëre mën a bëre daanu leen ñu paree ni ñu war a paree mën a bëre daanu leen jàppal ñii ma la wax guy gi bu paree ni war a pare faalewul mbër mu mën a bëre Gris Bordeaux bu paree ni mu war a pare loo mën a mën faalewu la bu leen làmb du jeex du jeex Ama Baldé bu paree ni mu war a pare faalewul ko mën a bëre loolu yàlla moo koy def ci ay nit am nit ñoo xamante ne nii mën a bëre daanu leen mel na ñoom moo leen di daan mm-hmm. Ama leen mën a bëre daanu ko parce que moom moo gëmul lu mën gëmul mën a bëre da koy wax. gën koo nekk der tamit daanu. waaw moom da koy wax nee na làmb li mu soxla mën naa ko lan la soxla am doole la soxla am gàllaañ mën a fecc am sañ-sañu def ko te mën naa ko. Mm-hmm. ñu gis récemment Modou Lo ko xam ne ni Ama Baldé du la may nga xalaat. Mm-hmm. arbitre day siffler bu daal di maam mu ñëw sa kaw mbir bu ñëw ci kawam dootu ko defati. waaw bu mammee ñoo ci kanam dootu ko defee xam Modou fi mu ne nii lu mu ñu dig ci làmb gars yi war nañ ko mën a gëm parce que nit la ko xamante ne tamit lu mu ñu won wanaat lay doona ah. lu mu ñu dig ci làmb mun nañ ko gëm mais tamit dañ koy bàyyiloo xel tamit rek rek rek rek ne Amadou Balde bokk na ci xale yi nga xamante ne nii ci làmb dama lay wax ne la loolu dàqu ko xuux dàqu ko. xuux dàqu ko. Mhm. looy bàyyiloo xel Amadou Balde. ma bàyyiloo xel ne Modou loo bokk na ci mbër yi nga xamante ne du ku ñuy humilier mhm. Modou du ku ñuy humilier du ku ñuy patar pataree ci làmb mu lim moom nga koy jox boo ko bëggee daan dañ naan nag Balla Gaye da koy humilier du ko bàyyi mu xalaat du ko bàyyi mu lii doon Balla Gaye humilier wul Modou Lo day xañ Modou Lo lim mën faaw gars bañ a ay patam patamee ak humilier Modou du ku ñuy humilier Balla Gaye li Modou mën lay fermer jàpp loxo bi foor ci Modou loo foo combat Balla Gaye Modou Lo fu mu taxee Balla Gaye day fermer loxo boobu bu ko tëjee jàpp ko lay bëgg te ko jàppee si lépp Balla Gaye moo ko ci yëpp muy loxo droitam daf foor mm-hmm. da ci foor mm-hmm. bu la bala day fermer loxo bo ba pare ragalul loxo bi moy comme ni ci nit ñi di baye xel bala baye wu ci non wala soralé wu ko té heure buñu jappanté pour bëre mom moko gëna gën gudd ay cër mur du ko da muur mënta dàq bëre bala ngay bala ngay moo gën gudd ay cër techniquement mo gëna paré ci bëre ba pare mu rëy ëpp doole muur ci lamb yëm da koy sàcc kàttan loolu day wane rek bala ngay mën ci Modou Lo ñu ko ci mën bëriwul waaw ñu ko ci mën bëriwul parce que une fois tamit day melni mën ci mën ci parce que li nit ñi gëm ci Balla Gaye la Eumeu Sène gëmul ci Balla li nit ñi gëm ci Modou Lo Eumeu Balla ko ci Modou Lo jàpp na ne ba lii boo ko woon mu ñëw daan ko dem ñibbi loolu gëm-gëm lay nekk ci nit tudd nga léegi diggante Reug Reug ak Guy gi coow li bëri ci trop mu doon combat am ten ñëpp ñu ngi koy xaar wax nga ko léegi ni Guy gi nekk na mbër moo am ten bu paree à cent pour cent mën a bëree daanu ko waaw Guy gi Reug Reug làmb ju nar a neex parce que Reug ndaanaan la boo xamante ni làmb fi mu ne amul lu ko ci nit di bañal lépp la confirmé lépp ci làmb rek da ko confirmer faaw nit ñi nangul ko loolu dafa confirmer lépp war na bëre guy gi warul bëre guy gi nii ak nii ak nii ak nii mais nit la koo xamante nii nii nii même bu ñuy wax yegsiwul ci ñoom guy gi ñëpp xam nañ ne day yegsi parce que bu dee escalier bi des ci digganteem ak ñoom guy ñëpp xam nañ ne bu ñëwee si ñoom day jaar jaal dem yoonam dañuy yokk lim rek te yàkkamti na ñoo xam lan la mun ci poids lourd kon na dem waaw nit lépp la mais dama lay confirmer li ma la waxoon ne la guy gi bu pare faalewul mbër mu mën a bëre loolu moom maa la ko wax buy gi bu pare wul ku toj mbapat faalewul li faalewul laa wul ku mën a bëre bu paree mais li jaaxal amateur yi ñu bëri ñoom ñu ngi dund laa mooy rek actuellement confiance bi muy dégager hmm. waaw confiance boobu nag day nekk ci mbëra ah, parce que tamit rek instant bi bu ñàkkee confiance lamb làmb dañoo war a wax ak moom li rek lan la lan lan moo ko war a jaaxal ci lamb instant bi def na lépp ci lamb dafa war a am confiance chaque jour ci lamb yee buñ ko doon ñaan leen leen rek lañ koy ñaan mooy nay bàyyi xel ci kàddu yi bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga di delloo di bàyyi xel tamit ñi nga xamne ñoy ñooy déglu parce que damay déglu dama koy faral di wax dama naan wax kat yépp dof lañ jàppee kat yi hmm. déba da nga tok di proposer proposé kat yi lo xamanteni du cër sax pour nga proposer leen ko hmm. yee mais rek mom amul lu muy bàyyi xel ci lamb wala mu koy ci hmm. yé mais tamit na bàyyi xel na guuy gi lay bëreel guuy gi lay bëreel guuy gi mu bëreeg Ama Baldé moom lay bëreel guuy gi mu bëreeg sida guuy gi mu bëreeg Bazoka mom lay bëreel amna solo balagay do Bombardier la revanche coow li bëri ci torop jot nañu def li nga xamante ne mooy présentation par presse interposée également ñu sànnante ay pic boobu ne nag moytu suma ko baala ngeen ni gënumaa diis loxo gënumaa ñeme lu métti ëpp ma fit hmm. waaw mooy li ma la wax boolewaat ci bombardier bu paree ni mu war a paree faalewul ko mën a bëre parce que làmb moom li koy def moom boo bëggee dégg-dégg ñu si lim yëpp doolee cëpp njëriñ bu paree ni mu war a paree faalewul ko mën a bëre bala Gaye nag nit la koo xamante ne nii moom làmb lu mu ñu si wax moom da ngay tëdd rek ne naa ko fayee bor lu muy def la jarul laaj dig na gaay lu ne def na fi lu ne ah, da beure beure beure beure beure ba ex bombardier échec ci kon tay lamb ñaar la ci dessal ay amateuram moy japp euma sen ne len mako mën duma ko daan ko japp bombardier ne mako mën duma ko daan ko jëlaat na kenn ki nañ tok diko déglu ndax lool dina yom mo bi non mënul yom duma bombardier mom ci réew mi ñu nek ni ni mom mën ta yom mom deug yalla mënul yom duma bombardier daan mën ta yom waye tamit mbeur la mo xamne am nañ gëm gëm ne mën na daan ko dul bombardier ndax bëree bi ngi fa sañ-sañ bi mi ngi fa lépp luy làmb mi ngi fa muy Balla Gaye numéro mm-hmm. mun naa daan ku dul bombardier mm-hmm. loolu moom gëm-gëm la bu ma am mm-hmm. parce que bu dee techniquement moo daax bëri bombardier fi ñu ko mën a yegg mu bëri mënuñ faa yegg bombardier mu mu bëri fi mu mën a yegg ci situation bu métti bëri ci bombardier mënu faa yegg bëri fi ndax bokkuñu nu ñu bindoo ci yaram bokkuñu nu ñu bindoo ci leen wax kay sur le plan de la bagarre walu xex ak force wa bombardier du bagarreur mais loxom day taslam xam nga bagarreur dafa am comme ñom giri bourdo mën nañ tek di teggi ba suba mais dafa am ño xamne sen loxo day taslam lamb bombardier modlo sen loxo day jexal lamb bu la dalé leneen lañuy waxtane muñal lek lamb non la nga ci dégg yalla mo koy def ci nit malik ñaar loxo bi day jexal lamb mais du bagarreur du mbeur muy taxaw di wéccio suba ba ngoon du ko def mais bu la loxo bi dalé mu jex modlo non la ko yalla bindé bombardier noonu la ko yàlla bindee bu la loxo bi dalee da ngay ñibbi mais gars yi nag ay bagaar lañ bagarreur nag mooy dóorekat yi ak encaissekat yi ñoo ñooy bagarreur yi hmm. am ñoo xam ne moom seen loxo day tas bis bi hmm. événement bi day jeex seen hmm. kon mun na jàpp ni ci wàllu xeex bombardier moom ëpp avantage non ëppul xeex ëppul avantage si wàllu xeex bi mais yor na coup boo xamante ne waaw yor na xamante ne nii mun na yàq làmb Balla Gaye mais dàqul maanaam nekkul moo ëpp xeex moo ëpp sañ-sañ moo dàq bagaar moo dàq lii mais nekkul mbër moo xam ne da ngay taxaw di weccoog moom ay coup muy dóor ngay dóor boo majee bokkul ci mbër yooyu non non mm-hmm. moom Balla Gaye li mu mën ci Gris Bordeaux taxaw weccoog moom coup weccoog moom coup boo nekkul mbër mooy dóoranteel mm-hmm. boo majee mbër mooy dóor la muy réagir nga bëreeg moom mu jeex mm-hmm. mais du ko ñuy dóoranteel xaar seen diggante ñoom ñaar bëre bu métti bëgg naa nag ñu jaxasoo jargandalu ñoom ñaar waaw ànd ak yu ndeelu ba mu jeex <laughs> bëgg naa moom yaakaar na mu gaaw wala mu yàgg laamu du yàgg de non non du yàgg de